mental moo gën a extraordinaire loo gis Cristiano Ronaldo muy Messi muy Neymar muy ñoom ñëpp ils sont issus des familles extrêmement pauvres exactement Cristiano Ronaldo il avait un père alcoolisé di door seen yaay di extra foofu lañu màggee tey jii waxuma la defar këram mais mun na defar àdduna mun na ñëw léegi tabax même sa Akon là Akon Akon mais Akon il est issu d'une famille pauvre et eh, kon papaam jéembe la doon jaay ay jaay ay tëgg jéembe papaam Mor Thiam jéembe la doon jaay ak tëgg jéembe day ñëw Sénégal jënd ay jéembe foofu taqale ay jéembe yanu ko dugal taqale ko teg ko dem États-Unis di jaay di tëggal eh, américains yi ñuy fecc tëng dëng tëng teg teg tëng dëng tëng gaay di kii mais mais mais eh, kon juddoo foofu noonu ci ghetto bi la jógee jaar na laa laag tëb jaar na ci kaso yi bu kon juddoon ci alal. kon du sàcc ay oto bañ koy jàpp di tëj ci kaso mais parce que ay qu'on est issu d'une famille extrêmement pauvre juddoo foo xam ni moom ñàkk moo tax mu dem dugg ci ghetto bi di sàcc di tey ñu koy jàpp gauche droite et cetera mais ay eh, kon tey tey jii bokk na ci lijjanti na boppam ba tey jii kenn waxatu ko Sadio Mané Bambali la juddoo fa la màggee est-ce que il s'est accentué victimisé no je suis pauvre je suis pauvre je suis né pauvre bon je vais mourir pauvre je vais grandir pauvre non c'est pas ça arrêtez leen alibi yi arrêtez leen de vous victimiser et chercher ngeen génn ci lii mooy lan ngeen def dara ci seen bopp yi seen bopp yi moo manqué seen bopp yi chaque jour bu may wax ak di def live di leen wax naan lii vous avez des problème de sa amuleen problème bii problème mu bii ngeen am parce que ñu fi ëpp alal ci monde bi lii lañ feesal balaa fii xam-xam moo gën am-am bu ngay wut dara sa bopp doo ko wuti lii. boo amee fii rek fii du ñàkk mukk fii fu munul fees fii fii fii vide incroyable c'est soit bu fii feesee adduna ñooy dem liggéey ñëw jox la gis nga sëriñ yi fu ñu toog la ñuy toog parce que dañoo feesal fii sëriñ yi ko ak yu may lay wax de dañoo feesal fii tepp fu ñu la waxee nga jommi ci yàlla nit yi di xotteeku partout dans le monde di ñëw di leen jox seen fii du vide fii munul fees fii vide fii mun na fees tepp fii vide day day day rës saa yoo gisee poos yi fees fii vide day rës ba jeex tàkk wuti leen am am balaa wuti leen xam-xam balaa am am wuti leen xam-xam wuti leen xam def leen dara ci seen bopp yi réveillez-vous réveillez-vous xam-xam mooy richesse nit mënu ko am di ñàkk li ngeen di li leen tal nii yéen a ko teg seen bopp wallahi yéen a ko teg seen bopp yéen a teg ku bon mu jël ñu bon teg parce que ku bon ku bon ku bon rek lay xam Macky sàll ba ngeen fa teg moo fa teg Lassana Sakho directeur ONAS mu ne ngeen arrêté ngeen dagg ngeen dagg seen butitu njur yi ngeen arrêté vous pondez loolu la leen wax mu teg fa euh, ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana mu ne leen mais fii inondation am fi arrêté de pleurnicher fii lu fi am moom mooy ay eau stagnante kese la inondation amu fi malgré nag il a minimisé les morts au moment où mu ngeen fal moom jël na avion dem ci ay réunion CEDEAO mais vous voulez quoi yéen vous êtes là que lu leen dal rek ngeen jooy ndeysaan comme ay liir comme ay liir bu ngeen juddoo ba léegi liir ngeen nangoo doon yaay sama genou bi mooy metti papa sama tànk bi mooy metti maam sama loxo bi mooy metti wooy sama ndey maa ngi jooy <laughs> mais mais loolu kese ngeen xam ko waa yéen xamu leen fépp jóg taxaw xale yi ñooy joytu xale day jooytu mag day jog faj xale day jooytu xale lu ko dal mu ñëw indil papaam lu ko dal mu indil yaayam papa sama loxo bi day metti yaay sama tànk bi day metti maam sama ndigg li day metti tonton sama kii bi day metti nga naan nga koy ëffal ëffal loxo bi bësal ko tànk bi yéen da ngeen bëgg a juddu ba dee ci xale quoi rek Macky Sall même chose Abdoulaye Wade lii la woon plan Orsec plan jaxaay jël gars yi lan moo indi jaxaay mais parce que ndox mi moo nangoon ki ñu indi leen yóbbu leen fële plan jaxaay plan Orsec ki Macky Sall déclenche le plan Orsec alors nañ leen dem <laughs> après fu nekk nii après ñu ngaccal leen ndox mi ngeen mel ni loo xam ne taw dootul amati déwén ngeen ñëwaat encore yaay maa ngi kii yaay sama ma màtt papa sama ngi mais vous n'êtes sama gars ku parewul kenn du ko xeexal boo ko xeexalee perte mais parewu leen sama gaay neexul ba neexul nañu muñ rek nañu muñ rek nañu muñ rek kay waaw nañu muñ rek quoi c'est catastrophique man am na yoo xam ne du ma utiliser coono askan wi pour utiliser ko pour am ci dara quoi je préfère noppi mu jàll que ma utiliser ko pour am ci dara mais man ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal li fa ne wallaay la azim seetlu leen dem leen dem leen sama page Facebook dem leen sama page Facebook ngeen xool est-ce que est-ce que publier naa fi inondation es ce que gis ngeen ma publier fi inondation est-ce que gis ngeen fi inondation dama ne du ma ci def dara duma ci def dara ki kenn ko publier dugal ci sama tur de mu ñëw ci man xoolal publier wu ma dara. gars yi ñu wax inondation man ma ñëw indil leen benn guerrier waaw benn guerrier boo xam ni lu ne la def mooy le capitaine Mbaye Ndiaye Mbaye Diagne du moins le capitaine Mbaye jaañ moom moom laa leen indil de boo ñu yuuxu Mbaye man leen mën ak ñii bokkuñu monde ñoom mu ñuy wax inondation man leen xaaral man ma indil leen jàmbaar ji moom ñoom nañ de ñi ñi dee nañ leen suuli ña gaañu ñu yóbbu leen ñu xool nañu fajoo après ña fa ne bon voilà quoi ñu lijjanti man ma concentré wu ci leneen voilà ma indi leen capitaine mbay Mbaye Diagne ki ngeen war a xam quoi waaw parce que mënu ma ñëw di débat ci loo xam ni bon ça cinquante ans moom la ñuy dund ah waaw ça fait moom la ñuy dund man daal yaakaar naa ni kii laay terminer quoi maa ngi leen di massaw bu baax euh, xam naa ni ñu muñ rek xaar après euh, incha allah yàlla yàlla mi nga xam ni moom moo ñu teg ñun yàlla rek la yàlla mi nga xam moo ñu teg ndox mi moo indi ndox mi waaw yàlla dina ko ŋàcc incha allah yàlla dina ko ŋàcc dina ko ŋàcc donc ñu terminer lii ñu terminer lii parce que kii dafa jara xam nag dafa jara xam ku jara xam la vraiment ñu terminer ko maa ngi leen di massaw bu baax waay bu baax yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla dimbale de ndox mi yàlla na ko yàlla na xëy rek yàlla ñu yeewu rek fekk yàlla ŋàcc lépp yónni yónni malaaka yi ñu ŋàccal leen ko ayant di benn doomu Sénégal buñ naan capitaine bay Diagne. capitaine Mbaye Diagne mi ngi gane àdduna le 18 mars sa kokki ci région de Louga waaye mi ngi yaroo màggee Pikine. rek man ci laa jëga sama coono ci man nanguwul ma def dara nanguwul ma wax dara ba ma dem ci juróom ñaari atam marché la may fekk bu jàngee ba ñëw fekk ma marché bu ñëwee day nangu njaay mi may jaay toog ko di ko jaay ba mu weesoo foofu itam su dikkee jóge lekkool dafa may laaj bagage bi li may toggee yépp da ko yóbbu ca kër ga moo may defaral lépp bu ma wàccee du ma roof du ma bale du ma def dara lépp mbaye ma ko lekk buggul dara lu ma naqare buggul dara ma jooy ko yàlla na yaxam seet amin amin amin waay bon après mi ngi sama mi ngi sama page ku ci nekk war nga ko xam la paquet capitaine Mbaye Diagne jàmbaar a ngi nii bu ñëpp meloon ni moom senegal moom kenn du waxati inondation mais c'est dommage quoi ndeysaan ñii lañ war a jàngale ñee am nañ capitaine Thomas Sankara hmm? sincèrement capitaine Isidore Thomas Sankara ñun am nañ capitaine mbay Diagne mais kenn xamu ko kenn jàngalewu ko kenn wanewu ko jàmbaar dëgg fàq tëdd fàq tëdd a ngi nii allahu akbar cay cay Sénégal <laughs> ma ne ma yàgg ma yàgg wax rek dañuy suul ndaanaan sulli baadoo la Sénégal ñëfa sulleeku yëpp baadoo lay fa woykat ya fenkat ya taxawaalukat ya théâtre kat ya ngéwélisme bi yor làmmiñ bu rëy di wax di taggaate yooyu ñoo fa nekk waa bépp doomu aadama bu baax rek bu yàlla siggil sargal ko ab jàmbaar day dee dañ koy suul yëpp di jóg ndeysaan capitaine moo capitaine ah ñëpp di ñee di bàkkoo ndeysaan seen Thomas Sankara ñun ñu am suñu Thomas Sankara mbay Diagne bi Thomas am suñu Thomas Sankara ñun te kenn xamu ko jàngalewuñ ko fenn doo gis benn révolutionnaire sénégalais bu ne la ma je wala yee je suis capitaine Mbaye Diagne te ñoom ñeneen rek la ñuy bàkkoo je suis Thomas Sankara je suis Lumumba je suis musuma dégg artist bu woy di wax ay waxu révolutionnaire ba tuguti ci tudd ci Mbaye Diagne je suis Thomas Sankara je suis Lumumba je suis Kenyatta je mais capitaine bay Diagne moom <laughs> lépp nag ndax suñu média yi xur dabb rek xur dabb rek gis naa benn waaye benn journaliste bu ma envoyé message naan ma dama la bëgg a jël interview man du ma ko tantôt ma ko sax dama dem xool yi mais fil d'actualité ñu invité yëpp ay Pawlish ay xawmalan Ngoone Njaay géwél ay ay ay xawmalan kooku nan lu mu si ay ay ay ay lu mu tëdd si Ousseyn Barigo ay man bu ma xoolee fil ma ne man man xajuma ci monde bi ba léegi tontu ma ko te yaakaaruma ko nii dinaa ko tontu te wala ma dugg ci live am man ama am fulla te ma bëgg ma ngeen xam ne boo ku ma ñàkk respecté wala ñàkk man dama am suma fulla bopp man jànguma di gëstu di liir di jël sama alal di dem à la découverte du monde pour wàcce sama bopp même boo leen wàccee man mënu leen ma wàccee kenn mënu ma wàccee du ma yéeg ci asamaan di di xotti pour laal juróom-ñaareel asamaan ngeen toog septième suuf parce que septième ciel moo am ak septième suuf ngeen toog ci septième suuf di ma woo déedéet du ma ko def du ma ko def ah man jamono jii nii ci kaw laa jëm de septième ciel ba laay xooli ji falaa laa bëgg a dem añee ji man doolem na wàcce ba septième suuf ngeen nekk fa di ci septième suuf sa ñu suul leen fa ngeen ngeen may woo déedéet je vais je vais pas e faire et je jamais je le ferai jamais